Euh, ñi nga xam ni euh, KCC yi nga xam ñi ngi dund euh, fii nii au niveau de Mekke ok bëgg nañ bëgg nañ mais tamit sànq ba tey xam naa kii man nekk nga doon wax yaa ngi doon wax soose yaa ngi doon wax soose est ce que mën nga ñu maanaam mën nga ñu ko tekki ci wolof li nga jot a wañ waaw am na ci boo xam ni mandinka moori la mm. beneen bi tamit manding manding la mm comme ça fi manan yerba su do ko loni bande ba yerba hmm. boy ta ko loni jadenta hmm. bobu manam la ko sosé la ci hmm. bir manam buñ ko don wax tay ci wolof moy bu deug démé lu fa lu manam bu deug démé lu fa upp di def ñu ne xana xatal manam manam euh mu ni garap bi ci buñu dal ci kaw garap ci kaw ciaru garap Sayo kerap kita gi pici rek picc yi dañuy naaw xam hmm. nga maanaam ni ma la koy mën a waxee comme ni ma la wax léegi rek dëgg bu demee hmm. lu fa hmm. di def c' est à dire man de dafa nekk làkk bu ni ñun ni musique sénégal comme ni ko waxe ni uh, lu mu yàgg yàgg yàgg ci parce que tamit gis nañ la ak sa guitare yaa ngi def euh, différents styles de musique maanaam ci côté traditionnel euh, moderne ak euh, yu bëri daal peut-être mën nañu wax que ni mélangé nga yu bëri comme supposons ni comme par exemple man mi nga xam ne maa ngi ci domaine hip hop bu ne soxla woon naa la la fay demee pour nga jël ma ay note musique est-ce que di nga ko mën a jël ay comme si hip hop. Mhm. waaw waaw waaw waaw. Mhm. naa ni man hip hop. Mhm. ci bokk naa ci ñi gën a inspiré ñi nga xam ni ci ñun la ñu jëkk a gisee guitare hmm. ñu dugal ko ci hip hop hmm. ndongo ji ak faara hmm. ci ñu man mii bokk naa ci ñi nga xam ne ci ñun ñoo ko jëkk a gisee ndax boobu ñu nga ñu ajo ñoom kaydi ñoom bipson ñoom iba boobu daa ñu ngi nekk ri 30 ri 39 ri 37 angle 22 ñuy daje foofu may jël sama guitare di liggéey ak ñoom ba bu ñuy dem rajo damay ànd ak ñoom kon nga xam ne euh, am nañ ci tuuti benn kii buñ ci buñ ci def li ma dikkee fii am na gars yi commencé woon di ma contacter. Hmm. mais comme ni ma lekk mbiri na xëy na déplacement yi mooy xaw a diis ci ñoom xaw a diis tamit far nag ma yor orchestre bi. mënu hmm. ma ko def ak ñoom ba bëgg na aman naa yéene trop trop trop pour liggéey ko ak ku mel ni euh, Jean Pro. Hmm. ak yeneen gars yu bare bare contacté woon nañ ma. ay ñoom MC Cool gars yi waaw léegi wax par exemple instant bi ak euh, yaa ngi guitare parce que tamit. ñaari son yi mu fa jot a joué yëpp mën nañu wax kan si traditionnel léegi comme par exemple est ce que mënu ngeen fi joué quelques euh, xam nga man comme li may joué mm-hmm. tout dépend yow li ngay li ngay nga xam ni moom que am naa xam ne fa lay mbiri na mm-hmm. mais damay jël benn benn benn son nii. Mm-hmm. comme son bi ma léegi ñoom ñu jéem a. léegi léegi léegi xaar ma mbay see comme woon acca suñuy kaar lañ ba tax na ñu kaar ñu ne ñu ne jaay ma nen te fekkante ne yow boo xool seen xool dafa xool ana ñi ma doon rey te laay doon rek di leen rey fa seen ne sama laa may ba mu ñëw la ne si ñaaw ba si ñëw di leen gën di bës mën naa bi taasu ci les yaa synagogue, somebody lived in a different, in Hola. Amen. parce que loolu yëpp actualité tamit artiste bi tamit day wax si actualité souvent tamit noonu noonu la fa demee tamit parce que je crois qu'on est mieux placé tamit pour ñuy dugg si domaine boobu yow loolu noo ko gisee. ok waaw jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di la remercier bu baax ci question bi am na solo pour que tamit li ñun suñu wàllu bopp surtout artistes yi ñu taxaw ci tamit ubbi seen bët ñu xool ndax bu ko état di joxe tamit nga xam ne moom moo ko génne ci dafa ko réew mi

ci loolu noonu ñu bë jot nañoo récolté ay mën nañu wax ne milliards sax parce que xaalis boobu ñu ko jotee dajale yegg na milliards te boobu noonu presque population bi mën nañu wax ne population bi ñoo ko joxe maanaam xaaral ñu état bi rek ñoom tam fekk si nañ état bi comme affaire tam je crois dafa war a gën a am transparence comme ni koy defee di ko leeralal askan bi yeneen ak yeneen waaw noonu la fa demee nag lu war a leer la lu war a leer la mais nag man benn affaire tam toujours moo leen ko moo leen ko sikkee xam nga fi mu ne bu fekkente ni dañu bëgg a def ni état bi li mu yor na ko génne mu joxe ko askan bi na la wóor ni comme li ma wax barki démb wax naa ko ci benn rajo nee naa leen mm. bu nekk ñu jël juróomi saaku ceeb jox ko ko ci Sénégal mënul nekk mm. mënul nekk te juróomi saaku ceeb yooyu mënul la dundal ci at mi mm. kon lii ñun li ñu war a jëkk def mooy ñun suñu wàll bopp ñu dimbaleen ci suñu biir euh, nga baal ma tuuti ñun fii fii nga xam ne fi laa dëkk nii mooy mbéyam gii suñu xalé yu nekk tuba bay mais def nañu bëgg dem ak bu am bu am solo ñun ñëpp ci groupe whatsapp bobu lañu bokk dañu yaakaar ne groupe whatsapp pour li la rek mais tey keroog yëkëti nañu lu toll in tonne ak lu top yëkëti ko andi ko suñu dëkk séddale ko ta état bi wala wala ñëwagul boole ko sukkal boole ko yenen jox ko wa dëkk ba té ñun ñi suñu ñaq ñu mboolem doomu xalé bu dëkk bay saw ñak ma nga ca yaa xam nga nek Dakar wala nga nek tuba wala fo mëna nek ñun loolu acte boobu ñun moom la jëkk def ko pare di toog xool nag ba xam lan la état bi indi mais man dama wóor ni ma man la jël ñu dugal ko ci biir dëkk ba état bi dugal du noonu ci dëkk ba la ñu dugal ci kër gu ci nekk état bi ko dugal ci kër gu ci nekk donc moo tax ma ne la ñun suñu wàll boobu ñun ñoo war a jàppalante ñun suñu boobu képp ku am war nga xool xam ne lii am na mais après affaire bi lan mooy xew Parce que wo gisee lu tax tamit moo posé la question boobu noonu est ce que dañu woon yoon comme par exemple ñoom jël tey daal alimentaire parce que ñoom xool nañ de telle sorte que maanaam xool nañ kër gu nekk lii moo fara dugg bien que tamit baax na ñu jël ay kii ñu ñu comme noonu comme ni ko kii jël jël leen suukar ak leneen ak leneen jox leen mais est ce que li gënoon au lieu ñu leen ko doon joxe noonu ñu jël comme xaalis ñu ñu ni comme par exemple famille bu nekk war na am cent cinq wala leneen ak leneen foofu je crois transparence dina si am mais da gis que comme ceeb ngeen commencé ko jox commencé na am problème parce que duñ xam fu mu dugg yeneen ak yeneen ñi ngi wax que ni ñii kii dafa farlo wala kii dafa lii wala la bu commencé indi problème est ce que tam comme noonu gënu woon que ñu joxe xaalis bu ko defee képp ku wala dara parce que tamit nekk je crois boo ko dimbaleetul tamit wa kii nekk di ko kii est ce que loolu gën ñu jël xaalis ñu jox leen que que que que def nii li wolof naan saraxatul bàyyi ko la loolu mën a lu war a nekk la parce que bi nga xamante ni euh, génn nañu ni dañuy sëddale ceeb bi mm. euh, am na benn kilifa bu génn ni mais lu tax ñu ko un milliard euh, cinq six milliards transport mm. pour lan wërta mën a nekk mm. te chauffeur yi taxaw ni ñoom bëgg nañoo def seen seen participation jël ko sarse ko ci camion yi dem yóbbu ko man ñooñu di leen sant bu baax mais man su ma jëkk a amee tuuti jaaxle mooy camion militaire yi nga xam ne war nañ ko mën a sàcc yóbbu ko nag camp yi ñaata camion ñoo fi ne. loolu nag moo gën. man ko transporté yóbbu ko ci askan man man man loolu laa doon soutenir. waaw armée bi dugal ci loxoom bu ko defee dina gën a am transparence ah. mais bu commencé dugal fii Massamba ak Mademba ah. nañ dem ba ñi nga xam ne ñoo ko waroon jëfandikoo duñ ko dafa yàgg Sénégal depuis 1960 ba tey doxalee moom moo fi dox moo tax su bu ma waxee dama ne eh, politiciens yu baree baree baree population bi daf leen raw te ñoom xamuñu ni population bi raw na parce que li leen population bi rawee mooy dañu toujours dañuy yaakaar ni ñoom xalaat bi ñuy am ñoom doy na population bi or que population bi am nañu beneen xalaat bu dul boobu kon toujours dañu war a seetaat ni ñuy doxaleen wi doxaleen bi mi ngi dalee ca suuf yéeg ca kaw moo tax lu naqaree defar lay doon mais nag àndandoo rek am gëm-gëm gëm ni lii war na war na mën a doxalin bu war na mën a changer loolu rek boo bo xolé xoolee début bi début ma début bi ñuy commencé confinement euh amoon na popularité de telle sorte que nit ñi commencé won nañu respecter règles d'hygiène mm-hmm. comme da ngay gis ci télé yi rajo yi ñu ngi doon jàllale message mais ay day dem ba un certain moment tam nit ñi dañ commencé bayé ko tam comme cas communautaire yooyu yoo xam noonu ah. je crois lool moko gëna gën a indi bàyyi ko boobu noonu de de de de de quoi de de de de xaw ma six heures ba ba kii ba sept heures sept waaw alors que day saa yu dugg ci koor waaw te ku ni koor tamit nit ñi nit ñi nañ tamit bëgg a gis seen dogoog yeneen ak yeneen te li ñu xamul ko mooy koor bi bu ñëwee tamit rassemblement boobu ñuy wax noonu parce que nit ñi def ñu dara c'est que añoo fa réeroo fa xale yi dañuy faral di génn di ludoo yeneen ak yeneen te foofu noonu cas si lay gën a si lay gën a si lay na mën na a yokk léegi ñu ay nit yi nga xam ne comme ni ko waxee ay volontaires yi nga xam ne da leen di sensibiliser yeneen ak yeneen ñuy dugg ci biir kër yi dugg ci biir kër yi di leen gën respecté loo règle d'hygiène wala yeneen ak yeneen je crois moo gën ñuy gën a jël armée bi tamit di leen teg ci kaw population est ce que yow gisoo loolu. ñu jël ay nit yu volontaires pour gën a dimbali ni ñu gën leen a sensibiliser. waaw loolu de moom loolu moom moo gën a moo gën a na rafet moo gën a na ndax tey bu fekkoon tey dañoo dégager benn moyen génne ko jox ko culture ndax xam ne culture sax dina am. culture sax ñu def seen wàll parce que yow yaa ngi nii génn ko fi nga keneen ak keneen. mais sama moyen bopp laa ko defee. suñu moyen bopp sama xarit sama doomu day ñuma ndax ñoo ko def di remercier bu baax baax di jëgóor jàpp na ci bu baax a baax a baax ak sunu boy yi nga xam ne eh, ñoo ñuy tourné suñu clip yi ñu leen ci jaajëfal di ci jaajëfal tamit ndax ku la jàppale ko nakat di nga ko gërëm di ci gërëm bu baax a baax a baax a baax Malick Thiomboxa hmm. di ko sant bu baax ci mbir na hmm. Dakar jàpp na ci bu baax melni mel ni diko lim lu mu man ren bu deewne yalla man ko japp na ci ku melni ni Modou Fall ko kooku moom mention spéciale bu maire yépp defal ni ñom man na ni kon ñun keur bal ki dekk bal dekk mën nañ fa def tay wallahi ancien ko comme ñëpp defal bu maire yi ñi contact contacté yépp fekk ni kenn ku ci nekk maire yoy def nañ ko ni Modou Fall def Modou Fall Kour li def ñun kon lima doon def moy and ak ma tumbu jël sama guitar bu ma demee bayen tey bu suba ma dem daaru kanji dem gaajam tak suñu sere wala ñu jël suñu auto dugg ci kër yi di waxtaan ak ñoom man loolu moo ma ëppal solo ñi ñi toog di ko di di ko wax nii rek di ko teg di ko teg di ko teg wax ni li nga wax ni dëgg tam parce que tamit ku ni artiste mooy maanaam ki xam day communiquer di ngeen am facilité ci communication parce que comme ni nga waxee tamit au lieu ñuy woy rek mm-hmm. euh, tamit comme ni ko waxee di jàng tamit bi def pratique euh, ñu xool tamit ciblé ciblé ay nit ñi nga xam ni mm-hmm. nit ñi euh, peut être jox nañ leen ci wala yeneen yeneen ñu duggal leen ci kii bi gën leen a former ñu def ko volontariat di nit ñi génn tas parce que je crois que loolu moo solo que ñuy concentré wu rek si euh, télé bi il faut que amee ñu ñu wàcc si euh, terrain bi. à part gendarme yi def pour feu guddi yeneen il faut am ñu wàcc si terrain ñu xeex ko comme yeneen dëkk yi. mais état bi sinon bu ñu gën a dem kaay day gën a yokk. mais état bi tam tout récemment mais état bi ñu leen tëgee mu métti ba métti. mais dañu jël artiste comme li ñu suñu def barki dem ñu def ay concert def ay ay ay ay ay ay ay soirée yoo xam ni comédiens yi dañ leen a génne jox leen moyen ñu toog ci télévision yi. toog ci média yi di bégal nit ñi ci biir kër gi hmm. di leen yeeyaale bi foofu comme li mu def bu vendredi ci biir këram ñu na comprendre loolu voilà message nag message mu foofu day hmm. comme li nga wax ni au lieu nga nga toog fi nga toog jël bi teg ko hmm. jël bi teg ko mais bu toogee moom bu message dafay dugg ci biir kër yi dafay dugg ci biir néeg yi dafay jàll ba ci salon yi fekk leen ci parce que ñu ngi toog lu mu def wala wax wala mais kooku ay moyen la moom laa leen ne bu ñii ñëpp ñii yi ñu contacté ñun parce que amul ku ñu contacté wu fii ah contacté nañ ñëpp mais benn Modou Fall ci maire yi fii benn Modou Fall ñu bu dëgg rek day mais moom kese moo yëkkati moyen jox ko ñëpp defoon tey dañuy jël oto tey du dem kër par dëkk par dëkk yee nit ñi seen dund bi nañ ko denc li jot a am ñebe ko su ko denc liñ jot a am dugg ko su néew nañ ko denc ku mën a jënd kilo ceeb na nga ko jënd ko denc ku mën a dimbali doomu a tegu que tamit ko yàlla de. Euh, kaay a yokk a hmm. jënd sàpp ceeb ko boo liggéeyatul liggéeyatul non non liggéeyatoo non mais foo jaar ba ñëw sa njaboot sax gis leen xanaa doo doxee Dakar nga ñëw. ba muy gisoo dama naroon am jafe-jafe parce que premier jour bi nga di confinement day dama ko dégg rek ma ne Dakar Dakar eh, sunu benn boy, sunu benn boy, fii la quitté dem Ziguinchor. Togo mais def na fële sept jours def na ko Tambacounda ndax dañu tëj frontière ba ak Gambie mu dem ba Tamba gars yi gars imaginer dafay voyager par étape bu xëyee dugg oto wàcc fee def foofu deux jours duggaat oto wàcc fee def fa deux jours noonu lay def ba ba àggaat si ngeen mu nekk lu nga xam ne lu metti la te moyen bi daal yaakaar naa ne bu ñu ko jooyaloon jëmale ko ci culture bi artistes yi dugg ci mbooloo mi mu am moyen wàcc ci mbooloo mi ànd ak soldats yi affaire yi foofu la doon gën a yombee. parce que li mu wax daal mooy il faut ñu am ay volontaires. waaw ay volontaire yoo xam ne peut être ñoom nañ xam comme li nga waxee ñu garder distance bi yeneen ak yeneen waaw teewul ñu dugg si kër yi di sensibiliser nit ñi waaw parce que buñ bàyyante koo rek li muy wax si cas communautaire rek day gën a yokk rek gën a yokk day gën a indi euh, problème mais nag xam nga comme ni mu ko waxee léegi rek man man de mën naa gàddu ni suma guitare ma dox dugg hmm. biir gars yi carte par carte hmm. bu ngoon jotee ma dox ñibbi mbiri na hmm. mais nag boo ko defee deux jours trois jours quatre jours da ngay commencé loof mais amoo benn moyen moyen bi nga am rek mooy comme nii nga ku mel ni yow éviter nga ñëw toog nga wax loolu rek nga am parce que fii ñi ci war a jàpp duñ ci jàpp ñu néew ñoo ci jàpp ñi nga xam ne am nañu xolu yërmaane xalaat nañu ñoom culture bi am na lu mu mën a indi ñooñu ñoo yëkkati seen alal ñu def ko ci mais am na ñoo xam ne gëmuñu ni culture bi ñun li ñuy def ni xañ na ay dama ni sax xañ na ñoom ay caaxaan lañ ko jàppee quoi dañu jàppee ñu ñun ñun dañuy caaxaan mais nag dañuy màggatum la dëm moom ku ko gisul mu gis boppam léegi euh, waxtu bi nga xam ne jagleeloon nañu ko instant mën nañu wax ni bon jeex na jàpp léegi Euh, le mot de la fin en plus tamit nga wax ma tuuti tamit kii bi nan la leen di nga gis que ni sa la en tant que artiste nga génne single euh, boobu euh, tamit en même que boole waa tamit. di di leen gërëm baax a baax a baax waaw single bi bi ko Ndioumane amee inspiration bi fekk na man am na benn bu ma defoon ba dugal ko ci Facebook bi mm. après bu ma Ndioumane waxee nag ma ne ah yow de ñëw nga ñëw nga parce loolu man lu ma bëgg la. bu ma sañoon ñu dajale musiciens yi fii yëpp ñu dëkk bu ñu amal moyen bi dañuy dajale musiciens yi ci gaay yëpp artistes yi gaay yëpp ñu def comme ni ñu sunu ñoom def ñu def waaye nag jàppale gi mooy loolu amuñu ko ma volontaire man ak juma ak Baye Samba Abdou Diop ñoom jàpp ci clavier maam góor tamit ni mën naa leen defal enregistrement bi fii ne clip bi nii bu ñu fi jógee nii ñu ngi préparé nii pour dem nii pour clip ko ci la ñu nekk nii booy baax booy dëgg laay jàpp ci ñoom tamit bu baax a baax a baax jàppale ñu ay suñu booy lañu vraiment booy ñu ay voilà kon loolu bu fekkante ni ñun suñu wàll lii rek lii rek jël suñu instrument bi ñu yor ak suñu voix li ñu mën ñu def léegi nag autorités yi ci ñoo war a xam ni ñun suñu wàll bopp du ñu noonu kenn noonu wuñu kenn ñun li ñu mën rek mooy li nga xam ne aar aar aar bi ñuy def te suñuy mbokk ñu war lañ cee yee war cee wax ak ñoom vraiment ñu ñuy jàppale rek té yalla tax ndax ñun ñaanu mais li mère bu ci nek am nga culture am nga fond culture au moins que ñu ci tout sax dañu ko jox. dégager tout parce que ah. comme culture moom dañ ko jox. Ah, dañ ko wara waaw ko wara bu question mais li nga xam jox ko mom man dama toujours culture sport kenn ko santé santé. kenn du ko yóbbu ci sport pourquoi xaalis culture bu ñu ko nangu di génne di ko jox ñi ñi yëngu acteur culturel yi man loolu man sama problème fii ci Kajoor nag laa ko gis moom man Casamance moom wax dëgg yàlla dama fay nekk dañ daan dégager culture carrément di ko génne ñu koy ñu mais fii moom bi ma fi njëkkee ba tey pour nga gis ñu génne culture déedéet te xaalis boobu du ñu mus a wax fan la dugg du ñu mus a wax fan la dugg man loolu loolu loolu moom question la boo xam ne toujours dañ koy laaj mais duñ ci a am tontu mm. euh, la jaajëfal di jaajëfal waa rajo Ngaye FM di gërëm tamit suñu gaay yëpp yëpp yëpp vraiment comme ni ko waxee yu ci nag yëpp xalim ci li ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tamit suñu xarit suñu doom ndey sekk daana bi moom tamit suñu boy la bu baax wax dëgg yàlla jàpp na ci bu baax a baax a baax ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di ñaan yàlla moom tamit lu mu man rek rek bu déwénee yàlla man man loolu ko ko ëpp di nuyu waa bayeen nag ma jógee di ko di leen sant bu baax a baax bàyyi di ko ñaanal lépp yàlla sama maam di sant mbay coro ñoom faama jane waa kër yëpp Ngañ yi ñoom wuli ñëpp rek ñu leen di sant bu baax a baax a di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di leen xamal ni rek dinañ fi dellu si waat incha allah euh, ngir gën a yaatal. Hmm. ngir gën a yaatal ci ni ñu ko doon waxee euh, doon naa am na lu ma la ci doon jot a waxtaan tuuti hmm. ci affaire culture bi naka la ñuy fexee ba gën koo mën a yaatal temps bi sax bu ñu ko mënee yokk ñu yokk ko culture bi ñi xam ne dañu yëngu ci wàllu culture hmm. ci wàllu commune yi. man fii daje di ci waxtaan rek mbirum culture ngir lii nga xam ne ñoo ko moom. incha allah naka la ñu a dajaloo pour mën koo génn. incha allah loolu dina doon euh, émission spéciale nga xam ne peut comme ni waxtaan bi mën na doon waxtaan nga xam ne mën nañu waxtaan ci biir koor bi. parce que yàq si dara waxtaan la. ci yàq dara comme incha allah comme ni ma waxoon nañu trouver solution de telle sorte que koor bi euh, émission bi day daw nañ ci gën a waxtaan. Euh, di bëggee Okay, Mona Lynn, climb up.